asalaamaaleykum mbokk yi dal leen jàmm ci li gën a fës ci kayitu yéenekaay yi 24 heures ci xëtam bu njëkk ñëw ci Benjamin Ndiaye gannaaw démb nag moo doonoon feetuk Noël kaddu yu mu yëkkati jëmale ko ci xale yi di tuut tànk yi moom nag jàpp na ni xale yi dañ leen a war a nabb nabbee toppatoo leen gannaaw bu ñu juddoo ba fa ñuy màggee ba tey nag ci loolee Libération moom nee na Benjamin Ndiaye nee na ñuy jàppale xale yi bañ leen a xoqatal ak dóor ak a saaga ndax jàpp na ne dëkk biir mu suqaliku faaw ñu toppatoo ñi nga xamante ne ñoo di xale yi ci biir l'évidence mel ni que nga xam ne moo di Adji Mbergane Kanouté dégg na yooyu le kàddu ndax ñu ngi ñuy xamal ne ci association boo mu duppee association protect children taxawu xale yi may na nag ay cadeau yu bare bare ñi nga xamante ne ñooy xale yi nekkee ca Kaolack ndangaan te seeni famille seen loxo jotul seen ginnaaw fa Grand Place ñu ngi ñuy xamal ne Aly Ngouille Ndiaye demoon na nemmeeku ji ñi nga xamante ne ñooy pël ya nekkee ca Tiwaawoon pël ña dëkk ñoom nag dañu doon def li nga xamante ni moo di grève de la faim lekk ñu naanuñu ngir am lu leen metti ci seen kër yooyu ñu foqati ci seeni loxo Aly Guy Ndiaye moom nag dem na fa dalal li nga xamante ni moom moo di seen xel ne leen dinañ leen delloo yooyu le kër mu mel ni nag gannaaw grève de la faim boobu le ñi nga xamante ne ñoo dëkk ca Tiwaawan Pël ñoom nag nee nañu gannaaw ñaari fan yi ñu jot a def euh, li nga xam ni mooy grève de la faim fas yéene nañoo dakkal li bile grève de la faim ndax ki nga xamante ne moo di Aly Ngouille Ndiaye na seen xel source a ba tey bu fekkee ne nag waa Tiwaawan Pël ñoom dakkal nañu seen grève de la faim am na ñeneen ñoo xam ne ñoom ña ngay waajal li nga xamante ne moo di ab doxu ñaxtu fas yéene banque seeni loxo ñoo ñooñee nag mooy ñi nga xamante ne nag ñooy liggéey ci wàllub santé muy cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale ñoom nag nee nañ dinañu tàmbali li nga xamante ne moo di grève bi fanweeri fan ci weeru fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2019 Walf Grand Place mag ñuy xamal ne foire internationale bu ndakaaru di ñaar fukk ak juróom-ñetteelu édition bi daanaka ab fiasco la kenn gisul kenn yëf neexul ci ñi nga xamante ne ñooy organisateurs yi waaye nag la ca gën a doy waar mooy produit ñu fay jaay ñoom jàpp nañu ne daal du produit yu baax looloo waral gisuñu picc ba tey ci Walf Grand Place mu mel ni que sénégalais yi seeni fit doonu na rëccët yi ndax ñu ngi ñuy xamal ne li jëm ci wàllum location bi dana yokkuwaat lool file ci biir Sénégal mu mel ni que nag loolu sénégalais yi bëgguñu ko dégg benn yoon ndax nag du jamono ju ñu ko war a yokkee critique la ñu koy euh, jeexalee ci biir critique nag ñu ngi ñuy xamal ne soxna soo xamante ne mi ngi tudd NDF moom nag ñu ngi ñuy xamal ni dafa faat ki nga xamante ni moo di ab bébé maanaam doomam gannaaw bi mu juddoo ba am ñetti fan la ko xocc ba mu dee moom nag ñu ngi xamal ne ma nga dëkk ca gànjaay moom nag danañu ko tëj lu toll ci fukki at ak ñett jërë ngeen jëf fa